asalaamualeykum. waaleykum salaam. wa rahmatulah pareeguma asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu mbokk jullit <laughs> bon on arrête soyez sérieux quand même ah lundi euh, tey lundi la ah ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm euh, ci seen fidélité merci beaucoup de nous rejoindre ci télévision Futur Média ñu àndandoo ak yéen démarrer semaine bu bees xam nga week-end dafa xaw a soof quoi enfin lundi moo xaw a soof voilà mhm. moo xaw a soof lundi euh, bu ñu yeewoo xam nga yaram yi day xaw a diis neex neexu samedi <laughs> noppalu dimanche et malheureusement léegi grasse matinée dafa xew yi ndax yeewu leen formule bu bees bi alors ñu fas yéene Info jëm 11h comme d'habitude man sama. tout au long de cette matinée lépp loo xamante ni soxal na leen di ngeen ko am dañuy boole li leen di bégal ak li gën ci yéen maanaam utile ak agréable entre information ak chronique yi ñu leen di jagleel euh, bis bu jot mën ngeen cee bokk dans quelques instants ah numéro bi affiché wu ci suufu écran bi comme ça ngeen xam euh, naka ngeen di def rek euh, ba ñu leen seen ay dépenses seen yu baax mais tout de suite sans plus tarder on enchaîne avec les titres de ce qui va être développé dans le premier journal de ce lundi matin avec euh, Léa. Bonjour. Bonjour Comment vas-tu? Ça va et toi? Valéa. Ça va, vous avez passé un bon week-end? Merci, mmh, oui. Moi non. Moi non. Comme tu dis, le lundi, c'est <laughs> soft. Hein bon, je t'ai demandé une réponse euh, tout à fait objective, donc si tu me dis oui ou non, hein, je la prends. Hein. Voilà, donc non. Bon, bah écoutez, mesdames et messieurs, j'espère que votre meilleur euh, me week-end était meilleur que celui de Pam Char. À cause de toi, je m'en mêle les pinceaux. C'est parti pour les titres de ce qui sera dans le journal. Arrestation de jeunes de la cité Avion de Wakam hier. Des affrontements ont éclaté face à la gendarmerie suite à la démolition du mur qui mène à la piste d'atterrissage de l'aéroport. Merci la régie pour les images. Autre démolition, cette fois aux HLM à Une mécaniciens et menuisiers dont les ateliers et garages ont été détruits au grand bonheur des riverains du quartier. Et puis comme aucun président depuis Senghor, Macky Sall la région du Sud pour une visite de 72 heures dans le cadre projet Pôle de développement la Casamance. Il y baptisera également l'université de Ziguinchor. Voilà pour les titres. Le développement ah, <laughs> le développement? Kon dañu fi toj bu bu bu 7h30 jotee. À également de euh, l' actualité alors sama gars yi na ngeen def nag naka suba si. suba ça va mbaa yéen a ngi ci jàmm. ça va alhamdulilah ñu lay waxatu nii Bijou depuis ce matin c' est quoi ton problème yow. waxatu yéen a may xasan. non ah, yéen ñi yéen a may xasan xam naa tuuti. mbaadu da ñoo allergie waaw waxatu yéen a may xasan. ah ñun ñoo ko ñun ñoo la allergie. Ah. non li ëpp na allergie nag bu ko dugal nag. nee na ñun ñoo koy xasan moo tax mu ñuy wokk. ah kii moom ëpp na ma dégg <laughs> xesanul xesanul xamul lu mu waxaat. ben ouais je te jure parce que tubaab la elle a rien je sais a may yéen a may Xasan kan moo lay lu tax ñu Xasan la. parce que day wokkatu. alors comme tous les matins comme tous les matins Excidex yi añu indil découverte bon coin bon bon plan bon coup. bon coup bon coup bi mu ji yàq rek bon coup bi lay bañ man. attends en tout cas euh, ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp di nuyu téléspectateurs yi tey nag euh, li leen andil da leen yóbbu euh, toujours à la découverte d'un métier donc moom mooy ñiy defar cin Pape Cheikh xam ngeen ñiy defar cin mm. mais woy cin dañ koy gis mu rafet lool ci wàññi. comment on les appelle ñiy defar cin. les cineurs. Thineur ok waaw ah, bon les ci les ci les chinologues <laughs> alors Thineur yi tey laa leen andil. wala chinologue yi. ñooñu nag tey boo gisee seen métier ñu bëri ñu gis ci ni pare mu mhm, rafet. Mhm. ñu def ci benn prix dugg ci waañ bi te nit ñi ils s'en rendent pas compte naka la ñuy defaree cin mais. Pape Cheikh Diallo. dafa métti mbaa bi waxuma la du ma fa delluwaat de mais ku ma fa dara delluwaat loolu suba damay bañ. <laughs> c'est extrêmement tàngoor bi ne foofu. Ah. musuma ko dund ba mu tuddoo ba léegi ak yi ñuy baxal. exactement parce que dañu nekk ci benn genre comme genre cinq mètres carrés ah. plafond warul warul xóot. Mhm. dafa war a gàtt. Mhm. ba noppi aluminium bi dañ ko war a seeral donc ñoom ñëpp dañu jege. suufu tàng bi. oh là non Pape ak saxaar bi. maag yow j'étais avec Yawo d'ailleurs donc yow à un moment donné. il en pouvait plus il était obligé di génn pour noyyi. Ah pour di mën euh, mais oh, tu peux pas ñun on pouvait pas tenir deux minutes là ah ah non c'est impossible. ñoom passe la journée là-bas. ñoom fa la ñuy xëy suba. ba jant ba ngoon déjà pour ñu defar benn cin boo ko naree muul. il faut quatre heures de temps boo ko sottee. dañuy toog di xaar quatre de temps. Uh-huh. chaque euh, presque trente minutes ñu wis ci ndox. ok pour que betteex bi xaw a di wow tuuti. ay ah, kan de ci ko sama kon de kon de yërëm naa ñi nekk euh, section bana non mais sérieusement vous rigolez mais c'est vrai imaginez ci ñu ndaw yi ka quatre heures de temps. ah su ma laaj mbana yi ak tudd fowukaay yi xam naa métti na. donc je je n'ose même pas imaginer. ñi defar mbana. ñi defar mbana moom xam <laughs> ah man heureusement ci ni ndaw yi laay dem. mbana moom xalaatu ko ko. Mm. waaw defar mbana yi waaw man j'ai choisi mm. les petites cines quand même. ci ni ndaw yi waaw tudd fowukaay yu xale yi wala. non non cinu mooy cinu kër yi su doon foowee taal ñu nekkee xale cinu tell yi cinu tell yi cini cinu cinu en fait laa demoon euh, jëli donc Pape Cheikh mhm. et ñoom yi da ngay gis ne tamit euh, amuñu matière première bi ah. mhm. parce que dafa raar ba noppi ñu doon ñaan aussi euh, li ñu ci jublu rek encore ma may wax téléspectateurs yi képp koo xamante ne bonne volonté nga boo leen mhm. mënee jàppale nga jàppale leen parce que tamit rubrique rubrique yi ñu leen di andil la majeure partie am nañu vraiment les idées am na ñu volonté bi mais les moyens ne suivent pas donc loolu mooy gën a tax parfois ñu won leen ñoom li ñuy daj mhm. pour que nit ñi au moins bu ñu ñoom bu ñu ñaanee wàllu mhm. wala bu ñu jëlee sa benn prix ne lii ñu ngi koy jaay fukki junni mhm. at least nit ñi mën ko mën ko jëndee fi ok kon aider aider les les les les defarkatu mbana. et non c'est des forgerons les forgerons voilà. waaw pour xale yi di jàngi école c'est pas les chineurs ah c'est des forgerons ah ouais fàttali naa ne xale yi génn ci kër gi dem ah, école ne les chineurs. c'est vrai ah balaa may wax samay bêtises bon damay bàyyi ba xale yi jàngi école ma doog a wax samay waxi dof quoi loolu ci kanam lay nekk ak euh, Exidex euh, découverte lay doon et puis euh, bijou comme tous les matins tey foo ñu yóbbu. alors tey dañ naroon def voyage musical mais dañuy am deux invités yoo xamante ni il faut ñu bàyyi leen temps ci plateau bi donc finalement voyage. mariage bi dañ koy annulé accueillir deux invités yi puisque ñoom tamit la on reste toujours dans la musique. donc on reste avec les coups de cœur quand parce que ñoom ñaar ñooy suñu exactement est ce que ñu divulguer ko léegi wala ñu xaar ba ci ah, a fuddu ah. <laughs> donc découverte avec deux artistes qui seront avec nous euh, ci matinée bi ba 11 bien-être euh, ak lépp lu ñuy jëriñ Mado lañ ci àndal bis bu jot. waaw kon nag Pape Ahmad Mbégte rek fekk si la ci sa plateau nuyu ñi fi nekk ñëpp di nuyu mbokku téléspectateurs acteurs yi au fait man weekend bi li ma gën a sonal c'est que <laughs> <laughs> ay tuju Pape Cheikh non baaliwu defal naa le gommage tes lèvres sont toujours sèches non mais dama <laughs> sonn on le fait en lipo damay def émission bi toute la journée ñooy toog donc bu ma ko defalee lipo tout le temps damay gis tuñ yi dafa yoo aussi on n'est pas obligé de suivre le on avait dit que entre nous lay des ma doon franchement ah. eu le temps de de de de voir réellement mes lèvres. en tout cas tey moom c'est ce que c'est li ma la defal daal je vais rester toujours sur les lèvres. mais par contre li ma gën a bëgg c'est parce que dama bëgg a regrouper. tu vas rester sur mes lèvres encore waaw toujours très cher. dama bëgg a regrouper famille pa yaay ak seen doom yi. Uh-huh. ñu dund benn expérience boo xamante ni ils vont le faire ensemble. alors li ma leen indil tey c'est très simple je vais vous apprendre comment confectionner benn lipolèvre. xam nga da ngeen di ko jënd mais nan nañ koy defaree en live and direct alors buñ ko dawlin wala karité ngay indi karité dina ci bokk waaw affaire à suivre yaa riis <laughs> ay waay tey yàlla tey tey tey tuñ yi ah wala yow tuñ <laughs> gis nga non mais tonton Mag da nga waroon da nga waroon da nga waroon may waa Sénégal rek seere ci tuñ yi quoi comme ça euh, balaa ma doon yàq sama der parce que tuñ yi nekk xaw na baax de pourtant ah diwaat naa mi ngi nii di woowaat man <laughs> xamul lu ne ci tuñu Pape Cheikh yi doo koy bàcc xam nga am na ñoo xam ne mënuñu def rouge à lèvres ni lipo lèvres yi ñuy def si tuñ quoi parce que dañu tàmm nii quoi léegi boo dee góor nekk jaaytaar comme man da ngay meles ko foo toll <laughs> hmm, hmm. di bii bonjour na ngeen def dàkkamti ko mbetem comme Mbaye Dieye Faye waaw góor yi def loolu waaw bi ci jaaytaar la bokk da ngay meles ko xanaa gisoo Mbaye Dieye Faye tonton mag nañu may benn sëñ sëñ Biram Dieye waaw <laughs> kër yaay eh. Awa Diagne sëñ sëñ Biram Dieye non may dañu fab Cheikh kër yaay Awa Diagne sax <laughs> jaxeeri bay manga e bon xale yi demaguñu école bu leen tax xale yi tiit <laughs> affaire mado lay doon bu ca kanamee donc bien-être bi tey euh, lèvres yi euh, tuñ yi voilà tuñ yi <laughs> euh, lipo lèvre lay defar donc yéen di ngeen ko mën a defal certainement ci seeni biir kër comme chaque lundi tey itam dinañu waxtaanee mbirum koom ak Maymuna voilà euh, Pape Cheikh nag temps yëpp dama lay déglu mu mel ni yow euh, consommation locale da laa xaw a yitteel de daa mel ni wala. Ah, keroog de lañ ko fi décrété de léegi désormais consommation locale sauf pour les habits. c'est ah, ah, <laughs> pour les habits c'est ce qu'on s'était dit hein, la dernière naa leen vendredi ngeen def seen yu baax. waaw vendredi defoon nañu consommation locale ah. ok si lool laa lay fekk si. mais dama indi beneen façon consommer local mooy li nga xamante ni yàlla daf ñu ko may. Mhm. muy soleil bi. di vent bi di ndox bi ñu war see mën a génn électricité Pape Cheikh xam nga Sénégal dafa am problème mu énergie mhm. chaque fois courant yi di coupé ñu am vraiment un réel problème en fourniture d' énergie mhm. tey nag dañuy ñëw si façon euh, énergie renouvelable bi nga xamante ni mun nañ ko mhm. utiliser pour ñun ñu mun a dépendant de façon énergétique donc nag en fonction de ça moo tax nag tey ñu indi leen loolu Pape ma defet ni mu nekk beneen façon euh, consommer local est-ce que loolu dina mën a nekk. waaw na mën a nekk kay parce que ñun parce que ñun naaj. 365 jours sur 365 lañ koy am. ngelaw am na fi. ndox am na fi géej am na fi pourquoi tamit pas utiliser loolu nekk ci jën courant bi nga xamante ni. dafa jafe euh, buñ ko amee tey suba duñ ko amaat. c'est euh, ba pare problème mu courant dafa nekk problème moo xam ne day persister au Sénégal en fait. c'est clair dafay dafay dem électricité dafa dem ba bokk sax si sa vie bu coupé day normal. c'est normal waaw Pape Diallo on est obligé de tendre vers l'énergie renouvelable parce que pétrole bi day jeex yooyu Mm-hmm. dañuy jeex te amuñu ko sax nag te amuñu ko sax ñun dañuy gis na naaj bi moom ñu dese ak géej gi mm-hmm. am na déjà benn dëkk bi nekk euh, Australie une mm-hmm. ville boo xamante ne dañ créé ci géej gi xam na day day bouger nii ñu teg ci benn euh, kii yoo xam ne dafay bouger saa yi demee nii bobine bi dem gauche dem droite donc mel ni xam nga lampe torche yooyu ñuy frotter nii. Ah, taal mu taal ils ont ils le même système. Mhm. donc géej gi comme du taxaw. Mhm. donc final waaw day bouger et mais xam nga ex sax Australie sori na parce que ñooñu au moins dañuy dafay am neige et tout mais ñun on est éclairé 365 jours sur 365 donc il est temps nag ñu war see mën a jariñu. waaw jot na ñun suñu kër ñun ñooy joxee suñu bopp courant. noonu leen koy defee ah Pape Cheikh wàññil courant bi uppal tànk <laughs> eh c'est pas vrai de voilà <laughs> léegi bu ca kanamee kon may mun a yow la ñuy àndal ci wàllu woowu ak euh, koom-koom